fi indi mooy ëllëgu Sénégal te suñ amoon ñaari nit kese képp rek donc di dox ngir ëllëg ngir ëllëgu Sénégal di wax ngir ëllëgu Sénégal di jëf ngir ëllëgu Sénégal ñooñu euh, lañu rek la ñuy ñaan yàlla mooy am yaakaar que ñu mën yee askan wi te ñun am nañ yaakaar que tey askan wi yeewu nañu ci mbiru 6000 milliards yi te mais bi xalaat wax ci nee naa teen yi daanaka pétrole ak gaz suñ koy xayma euh, am nañ ñu toll ci 10 teen dix teen te scandale bi bu ñuy wax ci pétrole bi ak gaz bi moy six milliards yi suñ koy gestu danaka ci ñaari ten kese la moo ñu ne na Sénégalais yi xoolaat seen taxawaay na Sénégalais xamné xam que lu ñuy wax ni du waxu carte électeur du waxu par parlo ëllëgu Sénégal mo ñu ñor motax tay tey ñu ne dañ ci dugal suñu loxo ndax mëna woné suñu naxar ñom nee nañu que danaka amul ku ñuy wut dañuy wut danaka x. ci danaka mëno leen.

Le Sénégal ci contrat yu mu signé mom président Macky Sall mom xamna ñun xam nañ bu baax a baax que intérêt yu askanu Sénégal dañ ko préserver wul. kon lolu motax ñu ñëw fi tay and ak plateforme A la ñu bokk ànd ak suñu mbokk sénégalais yi ak sénégalais yi. Ah, wane suñu naxar.